برهام باء وراء ألف ثم ها ميم مجل فيض تيجان جخن نيوينان gis lu dul yàlla saa boo gisee lu dul yàlla rek dong sa koor moo tax am na ñoo xam ne dañoo woor minal azali duñ dog ba ilal abadi ndax lu dul yàlla mënuñu ko gis ndax nekku fa Baye Niass radiallahu anhu ñëw góor yàlla yëpp junj ko ña ko njëkkoon junj ko ndax Mouhamadul Xaafaz borom xam-xam la woon nekk ngand ci biir Mauritanie kenn werantewul diggante Boutelmik ak Nouakchott ñëpp ay xayma lañ woon ñëpp bokk ci tariqa tijaani ci jamonoom ndax bokkoon na ci ñi am al ijazatul mutlaqa ijaza guñ joyal ci Cheikhu Tijaani fukk ak ñeenti doomu aadama ñoo am ijaza mutlaqa ci Cheikhu Tijaani محمد الحافظ بقون نشي نيونيو محمد الحافظ مومو الشيخ تجان نيوان نكو لا تظهر نفسك حتى يظهرك الله بول فيني الفبوب با يالا فيني الله بكو يالا فيني طريقة تجان جي مانا باوان تي لخوم نجاب تي لخوم تي طريقة تجان كن خموكو تي اي غور واي نك بدم نبا ياكار نكت موم موي غور قدون شيخ تجان دي وخنا دانا فيني تي طريقة بي والله لا يعرف في الدنيا ولا في الآخرة بان ياكار بام ياكار موم لوين تي اي وين هب انني انا الذي قد ظهر من الاولى امرهم قد اشتهر وصاحب الفائدة آخر الزمان وفائق الرجال في علم القران أفردني في الثلاثين سنة وأيقظ القلوب بي من السنة موكو وين مو محمد الحافظ نحن فيا كارا مو موي بروم فايدو بور ما واخ لين مقام باي بي سيني جارك نيكو دون ووتو موني هاب نغا ديف انني من محمد الحافظ انا الذي ما كان خم قد زهر من الاولى امرهم قد اشتهر ماي واجا فين تا نغا خم ني سين بير سيونا سي بير تاريخ بي ندخ الفايده من ماي بروم فايدو دي اخر الزمان مجنتلو جمانو xanaa leer na wa saahibul faydati axira zaman wa faiqu rijaali maay ki raw góor ñi fii ilmil qiraan ci xam-xamuk alquran wéy gi moo tax mu ne ko ilmul qiraan waaye quran la waaye wéy gi moo tax mu ne fii ilmil qiraan kon loolu junj na ne borom faydu bi moo raw ñi ñi ci xam-xam alquran ndax bàyyi ba mu ñëwee wax na ko te xoolal Cheikh Omarul Fuuti yu da ngay xool nga xam ne waliyu makshuf lahu ku yàlla may kashfu la am na wax jum waxoon wax jooju ba bàyyi ñëwee wax waxam teg ci wetu wax googu nga xam ne bàyyi ñes radiyallahu anhu moom la daan gars yi di junj amul sikki Cheikh Omarul Fuuti الشيخ آه، آه، عمر الفوتي نانا آه، اخذ علينا الاهد ان نفرح بكل شيخ او وائد برز في بلدنا وان نقلب اليه اصحابنا حتى لا يبقى حولنا فقير واحد ومتى تكدرنا من ذلك الذي برز وضاق به صدرنا فذلك دليل على حبنا للرياسه على عباد الله دون اراده الخير لهم والمراتب كلها بيد الله يؤتيه من يشاء وليس للعبد ان يقول لسيده لما اطلتني الشيء الفلاني واعطيته أبدك الفلاني الفلاني وربما كان ذلك الشيخ أعلم منا بالشرائع والحقائق فيقدرنا منه حمق وبالجملة فيجب علينا أن ندور مع الحق حيث ما دار ونتلمذ لذلك الشيخ موافقة للذين أقبلوا عليه الشيخ عمر الفوتي ما فهمونه جلونا نتي يالله كله نسون جيسي كوني راو تي يالله نجل سون بولمي أك سون تالي جناهم صعب باش كدوم آدم أمول دروانا يالله لتنغم يديولي تما يومكم من مرتبة أقراتي تلوحو يالله لنك يالله koy jox ku ko neex mu ne te kamay junj Cheikh Omar Fouti ne wa rubbama kaana zalika cheikh sëriñ boobu ma leen di wax nag su ñëwee pour ñu jël suñuy taalibe ak suñ mboolooy topp ginnaawam وربما كان ذلك الشيخ ليلي صح سيرين بوبو اعلم منا مونيو غينا خم بالشرعي والحقائق مونيو غينا خم شريعه مونيو غينا خم حقيقه سو سيتيري ما دنج كو فغيس لي ماي واخ ني واخو شيخ عمر فوتي ربما كان ذلك الشيخ سيرين بوغو ماي واخ صح ليلي مونيو غينا خم بالشرعي والحقائق فيقدرنا منه هم واي نك دويا دال تري با دون توب غيناو واي سون ديفي لولو جوم وبالجمله شيخ عمر فوتي ني مير مي دال موي يجب علينا ان ندور مع الحق حيث ما دار ورنا سي نون ني ووتو سي يالا ne saa bu dëgg feeñee ñu topp ci ginnaaw dëgg gi Cheikh Omar Fouti mag ko yajibu alayna an nadura ma an xaqi haysuma daara wa a li ñu nekk ay taalibe li zalika cheikh ñeel sëriñ googu may wax muwaafaqatan ngir ñu def koog lillazina aqbalu na ci ñun ñu nekk ay taalibe ñeel ko wax ci rima soo demee da nga ko fa bi ñëwee lan la wax ilamu anni ala basiratin min amri xam leen man gis naa sama mbir xam naa fi ma jóge xam naa fu ma jëm li an na indi imaama ni ndax am naa ñaari imaam imami ci zahiri imam sama imam ci zahir moy alkitab wa sunna alquran ak sunna ko yonent bi lan la ci tek mune wala adri man huwa alamu minni bihima xaw ma ci aduna kuma gëna xam alquran ak sunna xaw ko baye ko wax wala adri gisuma khawma man huwa alamu minni bihima gisuma ci aduna kuma gëna xam alquran gisuma ci aduna kuma gëna xam sunna xana kon la Cheikh Omar waxon serigne bobu su ñewé mo ñuy gëna xam sharia mo ñuy gëna xam haqiqa xana wax jaa ngi leer te yemul foofu waaja waxoon nag man may borom fayd gi dir ci raw ci nit ñi ci alquran xam nga won wona na ne encore borom fayd bi su ñëwé moy raw nit ñi ci alquran bañu sa radiyallahu anhu ni nga xamé ni nga ni nga xamé né amul morom ci alquran foko laal ci ay misal rek ma jox la ci ben exemple ben base yenen koy dégg saoudia moy mufti saoudia mo mo don mufti bi kay ubbi ci walu l'islam mo yoron majma al bahsi al islamiyya gis nga na tok nak bay mu né bay dégg na yeen da ngeen di tawil alquran tawil moy nga gis mbir mi nga xamné soko firé ni di dox nga ut benen pri tek ca pour mu gëna rafet looloo taawil ñoom dañ koy bay ñu ne ya alxuraan kenn warul ut beneen firi di teg ci wetam nam nekkee rek noonu la war a nekkee mu ne Baye Niass dégg naa da ngeen di taawil alxuraan bàyyi ne ko alxuraan suñ ko taawilul kenn mënu ko firi mu ne ko amul bàyyi ne ko ah te waaja nag gumba la benn la gis du gis bàyyi ne ko kon yow nooy firee aay alxuraan ji yàlla wax man kaana fi haadihi ama képp ku gumba ci adduna fa huwa kooku fil axirati suñ demee àlaxira ama day gumba kon yow soo demee àlaxira da ngay gumba waaji ne ko déet dañ koy taawil bàyyi ne taawil nga dañ koy taawil bàyyi ne ko kon taawil nga mu ne ko nuñ koy taawilee mooy ngumba gi ngumba xol la képp ku sa xol gumba fi fii soo demee àllaaxira sa xol day gumba kon xam nga ne ndekee firin tawin nañ ko xoolal bàyyi ni mel ci alxuraan man kaana fi haadi ama fa fi l axirati ama ku gumba fii soo demee àllaaxira da ngay gumba suñ ko yàlla waxul gumba xol foofu waxu fa gumba ak bët waaye il faut ñun ñu indi tafsiri taawin ne ah gumba gi kat gumba xol la ku sa xol gumba fii xamoo yàlla soo demee ci àllaaxira da ngay gumba ndax yonent bi nee ne ahlul maarifati fi dunia hum ahlul maarifati fi l axira ñooñug maarifa ci dunia ñoom ñooy ñooñug maarifa ca àllaaxira bàyyi ña sa ngi noonu gaa yaa ngi koy joxante di joxante maqaama yi kenn ku nekk yaakaar ne moom la Cheikh Umar Fuuti sax amoon na jamono ak maqaama gu réy gi ak wilaaya yaakaar ne moom mooy borom faydu ki ndax benn taalibe bu tudd ma ibnu Maham al Alawi bind na ko lettre ne ko waaw kooku di Cheikhu Tidiane di wax ne moom moo yor mbootam moo ko donn mooy borom faydu gi ñëw na wala ñëwagul suwaal waaqi laaj na gu dal ci palaasam ndax Cheikh Umar Fuuti yu jamonoom am na fatxu ci bi tariqa Tidiane yi ba nga xamee ne euh, këriñ ya ñuy toggee añ juróom benn téeméeri chargé maanaam si cent mbaam ñoy yenu saaku këriñ ya ñuy war a toggee añ xam nga kooku mbooloom bari na ci biir tarixa te suñu ñaké bo lu mat ay téméri téméri bo la bol du gëna a tuuti juróomi nit danañ fa tok kon koku amna fat fatxu ci biir tarixa ci bi waaye nak manké na benn siñ ndax borom tarixa bi su ñëwé borom tarixa bi su ñëwé nekkul ne nit ku ñul kessé koy gëm nekkul ne nit ku wéx kessé koy gëm wa min ayati bok na ci kéemtaanam ikhtilafu alsinatikum wa alwaanikum wuuteeg seen lamagne yàlla nee bok na ci sama kéemtaan seen lamagne day wuté seen melo day wute ñi dañuy xees ñi ñuul ñi weex ñi dañuy wax wolof ñi wax arab ñi wax pël ñi wax leneen beneen langue xam nga loolu bi bi yàlla waxee noonu rek noonu lañ ko jàppee waaye nag aay bu nekk am na baatin firi ci baatin da ngay wax borom faydu bi su ñëwee bokk na ci kéemtaanam nit ñi couleur gu nekk dana ñëw wuyu si ko làmmiñ gu nekk dana ñëw wuyu si ko tarahul yawma fi misra bi makkata aw kanoo tawran fa yurshidu kullahum fawra ila min hajihi al aqwa wa nuga narfa'u al aydi wa hayyul qud bazal aydi muzil al kadhi wal kaddi wa man min min faydihi narwa abul faydati la jadwa siwahu dahra la nahwa hadana sirra wa najwa ila man la lahu sharwa koo koy daani bi mu ñëwee gis ngeen gis ngeen macha allah couleur bu nekk gis ngeen ko ci biir faydu bi mais Cheikh Omar Fouti ñun ñu ñuul kese ñoo toppoon ginnaawam li may wax ni ñu ñuul léegi bañ ko bindee lettre bi mu ne arju an yakuna ana yaakaar naa man la li may wax ni ñun xam nañ maqaama Cheikh Umarul Fuuti num nu mu toll ci yàlla ndax Cheikh ah Ibrahima Niass al qutbul fuuti yu la ko daan tuddee al qutbul fuuti mooy qutbu xam nga ku yegg ci maqaama qutbu te moom xam na ne wax na ne moom Mouhamadul Ghali nee na ko yow Cheikhu Tidiane nee ne xalifa nga ci xalifa tariqa Tidiane loolu yàlla may na ko garaat googu mu ne yaakaar naa man la wala mu nekk limaamul mahdi mahdi mooy benn waaye juy ñëw ci mujjantalug jamono ci waa kërug yonent bi lay bokk maanaam sharif la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 waaye xam bu leen fàtte nag Mahdi su ñëwee eh, eh, taalibe يعني دي كده طالب طالب يعني دي كده شيخ في جان لا في طريقه بلا بوك ده فياخذها المهدي عند ظهوره لدى من له الاذن الصحيح بطيبته جان نان فياخذها المهدي طريقه بي مهدي سجن دنا كو جام فياخذها المهدي عند ظهوره سفاني ني نفان ني لدى من له الاذن الصحيح كو يور ديغل غو وير بطيبه تفايبه لول جان نان كو سي تير طريقه جان كون انا المهدي تلميذي بامر amri zuhuruhu maay ka nga xam ne mahdi sama taalibe la bi amri zuhuruhu ñu ne bàyyi yokkal bàyyi ne urajji liqal mahdiyi awnan wa murshidan lahu kullu waqtin min ridaya majaluhu urajji yaakaar naa liqal mahdiyi danaa dajeg mahdi awnan mu nekk sama ndimbal wa murshidan nekk kuy jubal nit ñi waaye lahu ñal na ko kulla waqtin bépp waxtu min ridaya majaluhu waru kaayam nga muy wër ak liggéey nga muy liggéey lépp de moom mahdi yu ci sama ngirmaande lay dox برهام باء وراء ألف ثم ها ميم مجل فيض تيجان جخن نينان